nee dem. mi ngi nee dem ndeysaan. lu nekk lay dégg. ndeysaan mi ngi noonu lay añi. yéen a am Jackson Jackson yéen a am jom waay. Bamba Dieng ak Bamba Bamba Dieng ak Bamba Dieng ak Bamba Ah, Lamine Diatta ngoog 2002 ndeysaan jërë ngeen jëf waay jërë ngeen jëf waay def ngeen lépp ndeysaan waxo def ngeen lépp mi ngi noonu ndeysaan ñi ñoo demoon ñi ñoo demoon ca Qatar ndeysaan ñi ñoo demoon ca Qatar macha allah ndeysaan ndeysaan ñi def nee na ñoom fi la ñuy yegg ndeysaan ba tey rek bilaay walaay bilaay ay jàmbaar lañ bilaay kontaan naa ci